wassalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di am mbégtalul ñëwaat ngir présenté leen beneen numéro seen émission xadiisu ramadan xadiisu ramadan ngeen di ko am fii ci la TVS bis bu nekk mu di émission spéciale ci lu jëm ci attey koor di jaamu yàlla bu mag bii ñu nekk di ko def yàlla nañu ko yàlla nangul tey ñu war a waxtaan ci mbir yi nga xam dafay yàq jaamu yàlla boobu nga xamante ni aji or ji bu ko defé rek de euh, amul koor koram yakuna, na nak koor go xamanteni yakuna euh, ci mbir yi nga xamanteni ni la sharia gis ni moy yak koor dafa am sanction yi nga xamanteni ni ci tege benn bi mom lañuy wax fay bisba fay bisba su wéru koor wi mu del ci wat nga fexé fay bis bobu nga xamanteni bis la bu yaqku ci wéru koor gi ndax da nga def lo xamanteni mo yaqku koor ga benen bi xéti jëf la yo xamanteni yow mi aji or soko défé non seulement da ngay fay bis ba mais aussi da ngay subir ben sanction bo xamanteni sanction la bu sévère lolou dinañ ci ñëw tay inshallah allah dañuy ñëw ci partie bi nga xamanteni ay xéti jëf la yo xamni aji or ji bu ko défé kooram day yàqu mais du subir sanction lu dul fay ab bis maanaam day fay ab bis rek waaw du am kafaara li ñuy wax kafaara kafaara moom mooy nga fay bis bi mais aussi woraat ñaari weer yoo xamante ni da koy tegalante waaw benn bis nga yàq mais nanga ko yàqee moo nekk yàqin woo xamante ni dafa metti yàlla ba yàlla mu daal lay sasaat nga war a woor ñaari weer ngir wattee ko bis boobu dinañ ci ñëw wala boog ñu ne la da ngay leel juróom benn fukki miskin ñu nga xamante ni dañ am jafe-jafe lu nu dundee nga tànn ci juróom benn fukk ku ne nga jox ko lu mu lekk ba suur waaw juróom benn fukki miskin beneen bi ci xeeti kafaara yi mooy sanction yu sévères yooyu nga xamante ni dañ koy sanctionné ki nga xamante ni façon ba mu dogee kooram la mooy goreel jaam waaw ci jamono bi jaam doon am dañ naan la il faut nga jënd koo xamante ni esclave la ci ay loxo la nekk amul liberté nga jënd ko après nga libéré ko loolu mooy dédomagement bi nga xamante ni moom ngay dédommagé maanaam mooy sanction bi nga xam da nga koy subir ngir sa koor gi nga yàq tey nag jaam amul mais mën nañu def àtte bobu ba légui ci naka tay di nga gis ci prison bi ñoo xamanteni euh khalisu jambour buñu ñu luubal moo leen fa bàyyi ku leen fayaloon rek même buñu amone liberté définitive aussi mën nañu am liberté provisoire légui yow bo demee nga fayal leen ñu genn mom moy def nga lolu nga xamanteni mom moy mooy jam waaw ndax mi ngi ci ay loxo. mi ngi ci diggante ñeenti mir la moo ko fi téye mooy xaalisu jàmbur bu nga xamante ni bu mu jël la ñàkk koo fay kon bu ñu wax rek ni goreel jam amatul effectivement jam amatul waaw mais amna na nit ñu nga xamante ni daanaka ay jaam lañu ndax ñu ngi ci ay loxo bu ko defee boo leen fayalee mu ngi mel ni libéré nga leen loolu parenthèse bu ndaw la. léegi tey dañuy ci mbir yi nga ni. dafay yàq koor gi rek nga war a fayaat bis ba mais doo subir ay sanctions yu mel ni ki woor ñaari weer wala goreel jaam wala leel juróom benn fukki miskin ba ca njëkk moom mooy lekk lekk euh, ak naan waaw lekk ak naan te tey ko wala te ñàkk ko tey te tey ko ci ñenn ñi ñu ne même boo ko teyee doo subir li nga xam ne mooy kafaara mais am nañu xaabaabal ci ni da ngay subir kafaara dinañ ci ñëw ci détail yooyu noonu mais su fekkee danga ko fàtte moom li leer ci xadis bi moom mooy doo fay bis ba da ngay continuer sa koor su weeru koor wi jeexee yaa ngi dégg doo ko fay mais imaam Malik ibnu Anas euh, ki nga xamante ni mooy kilifa ngirum Malikiya moom moo ni moom moo ni euh, da ngay continuer koor ga su weeru koor wi jeexee nga fay bis ba waaw ngir contexte mais aussi ngir déggin bu mu am benen ci hadis yonante bi ndax yonante bi dafa wax ni man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyatimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu hadis bi hadis bu wër la waaw solo ko ti hadis yépp nañ ci ni hadis bu wër la yonante bi li wax fofu mom moy képp ku nga xamant da nga lek ni or wala nga naan fàtte ni or na nga continuer sa koor waaw sa koor yàquwul ndax yàlla mooy ki la leel yàlla mooy ki nga xam ni moo la jox nga naan yonent bi di la wax am na benn xadis boo xamante ni sa alayhi wa sallam abu hurayra indi dani man man aftara fi ramadan naasiyan fala qadaa alayhi wala kafaara képp koo xam ni dog na dog na ci weeru koor fekk tayu ko fekk tayu ko da koo fàtte hmm? li ñuy wax juubu ci ñun dafa juubu dafa joom day day dal day dal nit ñi lu bari su fekkee koor gaa ngi doog commencé nga xam ni mubi, tàmmagum rythme bi dañuy joom lu bëree bëri da nga gis benn njaayeen boo xam ne juum na ñetti yoon ci bis bi. léegi yonent bi li ñu wax ci xaddis bi moom mooy bu mu fay nag continue kooram même su koor gi jeexee fay waru ko kafaara wayu waru ko li la yonent bi wax ci ñaari yi mais imam Malik ibnu Anas Imam daarul hijriya rahimahullahu Imam daarul Hijrah, moom dani Euh, yonent bi li mu wax moom li mu déggee ci xadis bi mooy yonent bi li mu wax dafa interprété mooy bakkaar way waru la effectivement mënoo am bakkaar parce que yonent bi nee na yëkkati na xalima gi ci ku fàtte te yow da nga fàtte lekk da fàtte naar naan imaam Maalik dafa dafa dégg ci xadis bi ni bakkaar waru ko mais kooram baaxul parce que koor critères yi moom mooy lan mooy nga respecté durée bu nga xamante ne mi ngi commencé ci fajar gu xar ba timis jot kon boo lekkee moom mooy diggante boobu ñu aaye woon la lekk ak naan diggante la boo xam ni lekk nga fa def nga fa loo xam ne day yàq koor kon ci zahir mënoo am koor léegi nag yonent bi moom li mu wax ni ci hadis bi moom mooy yàlla subhanahu wa taala du la toppee bàkkaar boobu nga xamante ni boo tayul la parce que bàkkaar ci loo tayul kenn du la ci topp mais borom xam-xam yeneen aussi dañ ni ko Malik dafa juum ci interprétation bi parce que li leer ci hadis bi texte bi maanaam yaxu hadis bi li ci leer moom mooy yonent bii daf ko benn bennal dani falyatimma gis nga moom mooy lan mooy na continuer kooram hmm? falyatimma sawmahu na continuer kooram fa innama ataamahu llahu wa saqaahu yàlla moo ko leel yàlla moo ko jox mu lekk waaw waaw bii sax mën nañ wax ni imaam Maalik ibn Anas déggewu ci déggé wu ci ou bien mënoo ci déggé ni do fay waaw parce que léru ci mais comme ko mandu na ci aussi sallallahu alayhi wasallam man mën nañ ci mandu jàpp ni do fay mais benen hadith bi nga xamni Abu Hurayra moko ko bobu dafa gëna a leer parce que dani man aftara fi ramadan nasiyan mo yonenti bi indi fala qadaa alayhi mana fay waruko gis nga wala kafaarata sanction aussi waruko gis nga kon muy mottali hadith bu njëkk ba fa inna allaha yàlla atamahu moko lèl saqahu mo ki nga xamni moko ko jox mu naan macha allah kon li moy taxaway bi nga xamanteni mo aju ci lek wala nga nan ci gu wer koor fekk dang ko dang ko fatte même atté aussi moy dikkat ci ki nga xamanteni egg na ci biram jaar ci bolem lo xamni sax manu ci amé tiafka lek wala cafka masalan ki nga xam dafa wann khalis dafa khalis hmm du lu mu tay wala man na mu tay ko wala mu na xeer par exemple xam nga kooku faj xiif taxu koo def loolu yaa ngi dégg mais kooram dafay yàqu lu tax parce que Abu Ya'la moo nettali ci xadis boo xam ne Aïcha di soxla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko indi mu ne innama al iftaar mimma daxala wa laysa mimma xaraja li yàqu koor mooy li jaar ci bëli wàcc ci biir mais du lu jaar ci biir maanaam du lu jugee ci biir génn ci bitti dañuy li yàq koor mooy liy jugee ci bitti jaar ci bëli wàcc ci biir loolu mooy li yàq koor maadaama dugg na ak li dugg lu manti mënti doon yaa ngi dégg yaa ngi dégg moo xam la mu mën a fajee xiif la wala la mu mënta fajee xiif la mais luy génnee ci biti jugee ci biir di génn ci biti du yàq koor loolu moo ñuy dugal ci buntu bi nga xamante ni mooy buntu wàccu abi hurayra moo nettali yonent bi saa sallam mu ne man zaraahu lxayu fa laysa alayhi qadaun ومن استقاء عمدا فليقضي waaw fal fal yaqdi waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis bi mu ne képp koo xamante ni wac wac waccu daf ko noot waccu daf ko noot ah fay koor waru ko maanaam or na mais ci journée bi waccu dikkal na ko muy waccu waccu googu yàqul kooram waaw mu ne nag wa man istaqaa ku tay waccu maanaam nga dugal sa loxo ci sa boli ngir waccu hmm? so waccoo sa koor yaquna masalan da nga fiiw wala su ne fiiw mooy da nga jël lu bari ci lek da nga top sa ndeyjoor ba nga sentir que ni sa bir bi li ci nek mana resal gi yombatul ba mi ngi soppeku mi ngi la commencer indi ay jafé jafé nga ni xaaral ma luju olof su ne ma sama loxo sama put ngir ma mën waccu ngir lima lek tam upp daa ngi dégg loolu de soo ko defee sa koor yàqu na parce que yow yaa sabab wàccu ba yow yaa sabab wàccu yaa ko causé mais su fekkente ni wàccu la moo xamante ni daf la dikkal yaa ngi dégg tayuloo ko yaa ngi dégg yàqul koor am na ñoo xamante ni exagéré lañ ko mën tuddee waaw wala ixtiyaat yi aussi ngir mën a sàmm koor gi bu baax a baax ñoom egg nañ ci xaababal naan su fekkee dara delluwul fekkee dara delluwul yonent bi saa sallam moom duggul ci détail yooyu dañi ku tay wàccu sa koor yàqu na ku ko tayul sa koor yàquwul moom foofu la yem macha allah léeg-léeg yenn borom xam-xam yi dinañuy xaw a dëgëral lool ngir lan ngir rek mën a ñàkk jaamu yàlla gi même dañ naan la fii am na contexte boo xamante ni imaam Malik daf ci tombé ci jamonoom nit ñi dañoo làqatu ci buntu su fekkee tayoo ko lekk ak naan doo fay après ñuy tay di lekk di naan naan tayuñ ko yaa ngi dégg mbiru mbiru tàppale yooyu njublang yooyu après mu ne voilà kon léegi atte bi moom mooy lan comme que dañ nekk ci dëkk bo xamni nit ñi dañuy mbubbo ci ndimbal yi nga xamni jappandal ak yombalu l'islam di jalgati ngir baña def jaamu yalla bi nim waré waree yaa dégg di tay di naan naan tayuma ko dama joom di tay di lek naan dama joom tok ba ci yag eh japp sa ah dama joom mu ne kon légui dal até bi mom moy lan moy ku tay lek tay naan da ngay continuer su wéru koor wi jeex nga fay ñu ne contexte bi mom mo mo moy lolu mais yonent bi li wax moy bu fekkee tayoko hmm do lek doo fa da ngay continuer koor gi après doo fay loolu la bi wax sànq ñëw nañ ci waaw ba loolu moo tax parfois les les les fuqaha les savants dañuy jumeler entre le texte et le contexte waaw le texte et le contexte texte parfois mën na mañewu selon contexte et le milieu loolu ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci waaroo wax nañ ci lu bëree bëree bëri waaw la kulli xaalin lii mooy li nga xamante ni mooy euh, bu juróom mail bi ak juróom benneel bi ci mbir yi nga xam dafay yàqu koor mooy lan mooy su fekkente ni soxna si gis na ses yi wala see lochi mu ñu waxee menstrues ak lochi ci làkku tubaab moom mooy deretu mbërëg mooy deret boobu nga xam ni soxna si daf koy gis weer wu ne wala deretu wasin gannaaw bi mu amee doom deret bi nga xam da koy topp euh, mën na jeex ci bis bi nga xamante ni ci la accoucher comme mën na ko topp lu toll ci 60 jours tey xam-xam egg na foo xamante ni ay xeeti garab yoo xamante ni. ordonnance wala bok médecine moko ko génnee soxna si fay am dom tay ñu jox ko lo xam da koy jëfëndiko deret bi set ci bis bi bu boba du laaj muy tok juroom benn fukki fan comme ni mu dalé soxna yu bëré bëri wa dañ nan juroom benn fukki fan yi matagul wala ñeen fukki fan yi dama joom ñeen fukki fan yi matagul ah mais bo sété kay demal nga jaamu yalla laajul xaar ñeen fukki fan ki naan ñeen fukki fan kay moy ki nga xamanteni deretam bi nga xamanteni moy deret bi ko top bi mu amee dégg jéxagul mais so amé moyen bo xamni ni aussi tamit man nañ ko jëfëndiko mu nekk moyen bo xamni bu wër gi yaram nangula ci nga war ko mëna jëfëndiko mu di garabu hôpital nga xamni ni da nga nañ koy naan rek après deret bi yëpp daal di génn ci bis bi mu jeex tak mais débal nga jaamu ji yàlla bul xaar ñeen fukki fan kon lolu la bo xamni soxna def leen dab kon waxtaan ci buntu tu règle ak tu wasin ci bëccëgu wëru koor fay yaq koor waaw dafay yàq koor ndax islam dani bu deret boobu génnee ci yow en tant que jigéen rek yow arrêtel koor gi ko defee su koor gi jeexee nga tànn ay bis yoo xamante ni moom nga koy wattee bis yi nga xam ni toppoon na la moom deret jooju ci bëccëgu weeru koor kon ànd ak deret jooju di or bal sax bakar nga koy nga cee jëlee maanaam dafa xaraam dafa xaraam ci ci sariya heure bu la dikkalee ni ñu lay aaye julli gi julli gi moom doo fay parce que dañuy julli chaque jour les cinq prières se répètent lolu motax islam du top ndaw si nga xamanteni dafa gis deret ci julli yo xamanteni ay julli la yu tok julli julliwu islam du ko ko faylo mais koor gi ben yon la ci at bi lolu motax islam da ko koy faylo waaw ñu né même su fekkonte ni sax soxna si or na ba nga xamanteni dog moins cinq waaw heure dog bi nga xam dañ ko gam le.

même su fekke lata muy sangu sangu set fajar gi xarna mais fexe na fajar gi di commencer heure koor di commencer mom soxna pas ke na koor bis ba parce que na ni set na mais sangogul amul temps sangu lata muy sangu khairun xayrun mina nawmi yëkkatiku na ñu ne da ngay or di nga am bis di nga am bis di nga am bis da nga fexé rek ci journée bi lata timis jot nga dal di sangu nga di sangu ba ci buntu aussi di bayilo xel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam encouragé wul jullit bi bal sax aay na ko muy yàgg ak sobe mu yàgg ak sobe kon euh, lii mooy at yi nga xamante ni yu ñu mën a wax la tam aju ci bunt boobu nga xamante ni mooy buntub gis deret boobu nga xamante ni mooy deretu règle wala deretu wasin yoo xam ni topp na soxna si gannaaw bi mu amee doom ñu koy wax an nifaas bële arab di ko wax alxayd euh, li wér mooy euh, waaw waaw mooy su fekkee dab na soxna si fay bis bi day fay bis bi ndax koor une fois une fois la ci année bi même su ooroon ba fait des ay simili dog jot dafay fay bis ba waaw mais ni ki aussi bu setee euh, fekk ni bis bi te bis bi commencé gul bi mu ba après la jotut a sangu amul jot bi pour sangu ñu salaatu xayrun mi wala amoon empêchement yoo xam ni na mu yéexee sangu mi ba koor bi dugg mais maadaama yéene woon na ko rek day am koor même su fekkee yeex naa sangu même su fekkee yéex naa sangu loolu benn la ci juróom-ñaareelu mbir yi juróom juróom-benneelu mbir yi nga xamante ni juñu nañ ko sànq que ni dafay dafay yàqu koor benn bi wax naa ko sànq moo jëm ci lekk wala naan daa ngi dégg tey ko bañ ko tey ñëw nañ ci àtt yi wax nañ ci. mais aussi loo xam ne egg na ci biiram jaar ci bëleem euh, même sax su fekkente ni sax amu ci caf ka lekk wala naan comme wan na ay bërëb ay dërëm wala wan na xeer wala yu ni mel ni ki noonu aussi tey wàccu tey wàccu ak ñàkk tey waccu wàccu goo xam ne yaa ko sooke ci dugal ci sa loxo sa bëli ba nga wàccu wala boog wàccu gu la noot la mais aussi deretu wasin ak deret bi nga xamante ni moom mooy deretu mbërëg beneen bi ci mbir yi nga xamante ni Euh, dafay yàqu koor ñu mën ci tudd li nga xam ne mooy yéen a dog yéen a dog waaw woor ba ci digg bëccëgu weeru koor intérieurment nga am intention dog man daal ooratuma waaw man daal ooratuma même su fekkee lekkoo dara ba bëccëg ba timis jot mooy sa koor yàqu na waaw parce que innamal amalu binniyaati wa innama li kulli mriin ma nawa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ni yàlla mi ngi nangu jëf yi di ko accepté di ko bindal ay tuyaaba feeg jëf ya yéene bu sell moo ko lal mais bu fekkee yéene bi sellul jëf bi day yàqu kon yàlla mu mel ni ki laataa muy accepté jëf ji dafay yër li nga xamante ni moom mooy yéene ba ndax sell na waaw bu fekkee yéene bi sellul moom jëf ji ak lu mu rëy rëy rëy yàlla soxlawul gis nga kon dañ naan jëf ci sarian yéene moo koy lal kon waa ji su wooree ba digg bëccëg mu ne man daal wori na waaw am yéene bi intérieurement mooy bëggatuma ci dara kooram kooram kooram yàqu na bis la boo xamante ni bis la bu muy fay moom moom aji aji koor googu noonu beneen bi euh, li nga xamante ni moom mooy euh, masturbation maanaam di foyee sa bopp di foyee sa bopp ba nga ba impureté majeure génn ci yow maanaam li nga xamante ni mooy sobe bu mag waaw li ñuy wax man mani kenn werantewul dafay yàq koor su fekkee ne nag waa ji si boppam du lu mu tey ngir feebar waaw ngir yaram wu wéradi nga xamante ni mooy to mooy def de temps en temps mbir moomu daal di génn ci moom rek mu daal di éjaculer yàq boppam dañuy delloo ci xadis ba këni yonent bi wax na ko ni koo xamante ni euh, dañ ko forcé wala mbir noot ko ci loo xam ne delluwul ci tayeefam rufeal xalam rufeal xalam ça veut dire duñ ko ci bindal bàkkaar waaw rufeal xalam an salaasin yonent bi nee na xalima gi yëkkati nañ ko ci ñett ban xalima mooy ki nga xamante ni xalima gi malaaka yi di bindee sa jëf parce que ku ne si ñun bu xëyee ñaari malaaka koy koy topp kii raqib ak atid la kii raqib la tudd kii atid la tudd kii day bind jëf yu baax yi nga xam ne yaa ngi koy jëf kii di bind jëf yu bon yi ngay jëf ñu boole lépp ci dossier jox ko yàlla subhanahu wa taala saa suñ saa su suba jotee ak saa su tàkkusaan jotee malaaka yi dañuy relevante loolu sax na ci xadis waaw léegi khalima gog nga xamni ci lañuy bind jëf yi yonent bi neena yëkëti nañ ko ci ñatt ci ñatt ñi ça veut dire liñ def même su fekkee dafa dëppawut ak li yàlla bëgg kenn du leen ko bindal comme bakkar mooy fàtte waaw ki nga xamante ni waxtu julli mi ngi ko fekk ci nelaw masalan par exemple ba keroog muy yewu même su fekkee waxtu wa passé na faat gi mu faat waxtu wi dellul ci bakkanam yëkkati nañ ko yëkkati nañ ko xalima gi mais aussi ki nga xam dañ ko forcer forcé waaw ba def loola loo xamante ni lu yàlla bañ la forcé la naan loolu sàngara forcé la faat loolu waxtu julli parce que da nga nekk ci ñoo xamante ni ñoo la ëpp doole wala ñu ak yu ni mel en tout cas forcé nekk na mbir moo xamante ni yàlla du ju topp jaam ba ci lu nga xamante ni def na ko te dëppawut ak li yàlla bëgg ci anamuk forcé waaw ak juum ak juum ak xataa wa nisyaana wa mastukrihu comme ni nga xamante ni noonu la ko xadis bi indee mais su fekkente ni nag lu mu tay la def ko nga xamante ni ay action yu def la ba daal di jóoru ba daal di éjaculer bu boobaa non seulement day fay mais aussi sanction boobu nga xamante ni mooy sanction kafaara da koy topp mais ci yennati borom xam-xam dinañ ci ñëw ci détails yi ci waxtu yi nga xam ci émission bii di ñëw nga xam ne ci dañuy gën a yaatal waaw mais position la ci yenn borom xam-xam yi ñu ne dafay bokk ci mbir day bokk ci mbir yi nga xamante ni rek day fay bis ba rek mais du kaafaara mais am na ay borom xam-xam yu taxaw sévèrement ñu ne moom moo ko sàkku ci anam bu ñaaw kon dafay kaafaara ça veut dire dafay woor ñaari weer yu tegalantu ak yu ni mel ci ñëw en détail kon incha allah ci kàttanu borom bi waxtu wi dam nañu ba subaak jàmm ci beneen numéro seen émission xadiisu Ramadan fii ci la TVS di sant di gërëm équipe technique bi àndoon ak ñun ba waxtaan wi yemb بارك الله فيكم